nga gis ñun suñuy kilifa di ko bàkkoo yonent bi yàlla daa dagg leeram bind ko ci ñeme leen rek nee yonent bi yàlla la mu jeex lu ngeen bëgg wax wax leen ko jarul làqatu bis boo saxalee ne yàlla dafa dagg ci leeram bind muhammad kon da ngaa bëgg wax muhammad yàlla da ngay làqu làqu bi jaru ko ñeme ko kon wax boobu musiba gënu koo rëy musiba gënu koo rëy mbokk yi bokk na ci gëm bi ñu gëm ni ñun daf ñoo bind ci coobareem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 leeral ci waxu mbokk mi Omar te wax bi ku ko diglu xam ni mi ngi jëm ci baytu góor gu tedd googu di suñu maam Cheikh Alhaj Malick Sy ci xilaasu zahab muy wa innahu iz araada nashatana abaana min nuurihi nuuran nabil alami xam nga ñàkk dégg ak gaawantu mooy yóbbee nit weddi mooy yóbbee nit diingat te jàng taxul a dégg te mbindum jàmbur surtout wayu jàmbur soo ko déggul màndu ca te am na ñu nga seen bind nitu fala fala du ko dégg jàng luxa du ko tax taxu ko dégg jàng arut taxu koo dégg wante soo màndiwul ci markazul fuhumi wal maani branche la wu ca mënuloo ko dégg te li ñu njëkk a bàyyilu xel mooy góor gi bind loolu muy maam Cheikh Al Hadj Malick la suñu maam Serigne Cheikh Ahmed Tijani waxoon mbokk ma bi mu ko waxee ni ko sama nijaay dafa wax ni d'accordul fii ak Cheikh Al Hadj Malick Serigne ni ko sa nijaay mënul gàgganti Maodo mu ni ko ndax Maodo maftuuxun alayhi la mu ni ko te sa nijaay ferul ijji nit nag boo ferul ijji nga xam ni feroo ijji nga xam sa bopp ndax mam si alxaaj li mu jàngale foofu wax ni wa innahu iz araada allahu nashatana abaana min nuurihi nuuran nabil alami xam nga foofu jàngalewul muhammad bi muy wax bay tudd xul innama ana basarun mislukum ndax muhammad boobu mooy muhammad ibni abdillah wa amina waaye moom yegseegul foofu saal <laughs> xajmali yegseegul foofu ndax foofu moo mujj fofu mo mujju fofu ma nga cey yexse ci bi mo nan wa kana sisun wasiyal asli taqilan min khiratin karamin lil xiiratil karami qatantaha بالشموس النور مفتقرا لقادة العرب فهر الجلة النزم ب ni mu waxee ni euh, leer ga mi ngi mujj ci abdallah mi nga xam ni moo booy juru yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa ba leer gi génn nekk jëmmu ñuy wax muhammad ibni abdullah wa amina moo tax aaya bi muy tudd noonu te mooy xul innama ana basarun si alxaaj mali yëg seegul foofu moom ma nga ca muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu nekkee leer nga xam ne nekkagul jëm te booba aadam bi muy wax bay tudd ban ak suuf aadam amagul ndax kuntu nabiyan wa aadamu baynal maa i wa tiini yonent bi nee na ba may yëg ni yonent laa mu ne booba aadam mi ngi ci diggante ban ak ndox moo tax dimension boobu si alxaaj Malik di waxee ci yonent bi booba ma nga ca leer ga mooy boobu naan kuntu kanzan nga xam fofu yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leer ga euh Muhammad bobu mom la yàlla mom le si alxaaj ma wax ni bi nga xame ni yàlla subhanahu wa taala muni ni bëgg naa bind binde fi wa innahu gi di damiru sha'n dellu ci kawnul xaqiqa ba foofu lay wax ni la fa am ndax xaqiqatul kawni boobu kawnu boobu moom lay wax ni la fa am la fa xew mu ni is araada allahu bi nga xamee ni namm nam yàlla daw na nash atana ci bëgg sos ñu ñun mbindeef yi te naa jooju euh, ñëpp duggandoowuñu ci naa yi dafa am ahlu xaas am ahlu am gis nga ahlu xaas sa ñoo mën a jàngal ahlu am la fa xew moo tax soo bokkul ci ahlu xaasa xanaa bokkul ci ahlu am da ngay déglu ñi xam ñu wax la te moo di yàlla bi mu bëggee bind mbindeef yi du dafa xëy rek bindandoo ñëpp waaye dafa am e, sélection bu mu njëkk a génnee ñooñu ñoom ñoo xam la xew ca xalq ba moo tax ñoo koy jàngal ñi ci des mooy li Sëriñ Cheikh Ahmed Tijani waxoon ni mu ni bari na ñu nekk fii di coow di wax ak di rëyal kaalaak di guddal sikkim mu ni ta suñu dajee ca kaw mu ni gisuma leen fa fi durratil baydaai mu ni kaana ijtimaauna wa min qabli xalqil xalqi gis nga ومن قبل قلق القلق والعرش قد كنا ñooñu nag ñoom ñoo mën a wax la xew foofu moo tax loolu la si alxaaj maal ni la fa xew mooy yàlla subhaanahu wa taala bi mu bëggee bind mbindeef yi mu ni abaana dafa branche baatoo abana yow soko ko firé dafa la génné ya togn ah nee na abaana mu ne dafa branché wala abana dafa feeñal ñu ko yalla lu mu branché mu ne nuuran nabil alami leeru yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam mun la moom la branché min nuurihi ci leeram moom yàlla subhaanahu wa taala moo tax yonent bi ni ana min allah ba mu branché leeru yonent bi ci leeram leeru yonent bi la projeté ci xalq yi moo tax law lam yalo fi fadail kawni talaatuha tabgal bariyatu fi zalmaa yi mu ni budul woon leeru yonent bi feeñ foofu yàlla projeté ko foofu mu ni kon mbindeef yépp des ci lëndama adam moo tax nag su fekkee ni déggoo ba bëgg a jël yonent bi yamale ko ak mbindeef yu jóge ci Adam kenn gënu laa alku ndax yonent bi jógewul ci Adam moo ko yàlla subhaanahu wataala fi ñu àndee kenn xamu ko moo tax kenn mënu leen a tàqale ku bëgg a tàqale diggante yàlla ak yonent bi yaa sëb ndax xamoo fu ñu àndee ñoom ñaar ñaar ñoo xamul fu ñu àndee nag nga bëgg a tàqale seen diggante kenn gënu laa sëb looloo tax nañu bàyyi xel nañu bàyyi xel ndax am na ñu nga xam ni soo leen toppee ñu sànku sànkaale la ndax mag ñi liñ wax xam nañ ko li wax ñoom xam nañ ko yow nag su fekkee téere moo la jàngal te téere du joxe xam-xam su la téere jàngale nga xëy suba bëgg a weddi mag ñi gis nga ñooñu boo leen toppee ñu sànk sànkaale la moo tax maam si alxamal li mu wax leer na ndax kenn gënu ñoo xam ni zaatul aliya la tatajaza yàlla kenn du wax ni dafa dafa dafa génnee dafa tibb ci leeram waaye nag yàlla subhaanahu wa taala xam nga sëñ dafa wax ni jë c'est inaccessible sëñ kon nag foog mu bo wutal boppam vitrine moo tax vitrine bi mooy Muhammad sallallahu alayhi wa moo tax maam si alxaj ma wax ko ne xaqiqatul kawni mu ne aynu zaati talaatuha ifaadatullahi nuurullahi ifaadatullahi nuurullahi allahu moo tax am na ñoo ne seen mbind nitu falaa falaa du ko jàng luxa taxul nga dégg ko jàng arut taxul nga dégg ko jàng balaaxa taxul nga dégg ko tax soo ko bëggee dégg foog nga branché wu ci markazul fuhumi wal maani lu dul loolu nag dangay ngay màndu tabaarakallaa loolu la ñu doon leeral ak mbokk yi ñu bàyyi ci xel wasalaamaaleykum wa rahmatullah